salaamaaleykum mbokku internautes yi yéen a ngi fii ci Warkha bi premier plateforme de production de contenu féministe au Sénégal souvent bu ñu defee suñ conseil santé ci fruits yi wala légumes yi da ngay gis femmes enceintes yi maanaam jigéen yi wanu lor yi di la laaj ba xam lii mën naa koo lekk ba xam baax na ci man moo tax tey seen émission conseil santé dem leen defal gëstu ci lan la jigéen bu wanu lor war a lekk ak lan la war a moytu di leen xamal ni ba tey rek. wannu lor nekkul ni ku jigéen ki dafa feebar comme suñ terme olof ni koy waxee jigéen bu wéerul jigéen bu wannu lor comme jigéen bu wannu lor war na di lekk ay fruits lu ci mel ni pomme banaan xaal melon yooyu yëpp war na ko di lekk ay raisin war na di lekk légumes carottes tomates batanse yooyu yëpp war na ko di lekk war na lekk ay féculents lu ci mel ni ay petits pois ay maïs ay pois ay blé yooyu yëpp war nga ko mën a lekk war nga di naan ndox bu bëri war nga di lekk matière grasse yi mais en l'occurrence huile végétal war nga di lekk produits laitiers yi lu ci mel ni fromage lu ci mel ni meew war nga tamit di lekk viande carne yi lu ci mel ni jën yàpp volaille yi muy ginaar di kanaara di petit di di kanaara di oie lan nga war a moytu mooy di lekk loolu ñuy woowee ay aba aba nag boo ko déggee mooy biiru xar bi wala bopp xar yi parce que moom dafa bëri vitamine A te vitamine A bu bëri mën na sooke yenn ci malformation ci xale bi war nga tamit légumes yooyu ak fruits yooyu balaa nga koy jëfandikoo nga raxas ko mu set pour moy moytu jàpp yenn ci feebar yooyu ñuy wax listériose wala toxoplasmose ndax ñoom seen prise en charge si période grossesse day metti war nga tamit di bañ a lekk ay viande crue bu ko lekk viande yi yàpp yi jën yi balaa nga koy lekk danga ko war a togg ba mu ñor war nga tamit di moytu yooyu noonu ñuy wax lait non pasteurisé yi ak fromage yi nga xam dañ koy defaree à base de lait non pasteurisé yi tey seen émission conseil santé lii la leen indiloon fii ci Warkha TV di leen wax ñu ngi ci TikTok ñu ngi ci YouTube ñu ngi ci Facebook ñu ngi ci Instagram jox leen dig daje beneen yoon fii ak beneen conseil santé